bàyyiwuñ kenn di leen eh, seetali pour dëgtal ne programme yi nga xamante ne xew-xew xew-xew yi nga xamante ni di xew-xew diine yi nga xamante ni moo xew si jamono ji ginnaaw ba ñu jógee màggal Touba ñuy waajal eh, gàmmu Tiwaawan gàmm buñ ne suñ xel yëpp danaa Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu ci la di dem eh, dañuy tey ñu invité ki ñu naan Maodo Niang imam Maodo Niang ñu fekk ko fii ci Thiaroye Géej fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu burdu bi waaye te waxtaan ak moom ci gàmm gi la moo tax Seydi Hadji Malick woote Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam te wootalul loolu lañ fas yéene waxtaanam incha allah si ñaari point yooyu après ñu tàggoo beneen euh, tàggoo bu dul tàggoo incha allah ginnaaw boobu dañ koy nuyu rek doo commencé waxtaan bi salaamaaleykum imam yëpp di nuyu waa biti réew ñi seetaan yëpp. Mhm. nuyu jullit yëpp. Mhm. ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. di ñaan mu defal ñu ak ubbeeku. amiin ba waxtaan wi waxtaanu sunna. Mhm. nekk waxtaan woo xamante ni day jariñ ki koy wax jariñ it ki koy déglu mm-hmm. yal ko yàlla defal ci darajo yonent bi amiin incha allah mm. euh, ginnaaw ba imaam Maodo Niang nuyoowee ñu fay ko nuyoo ñu tam ñu ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah dañuy njëkkee ci burdu bi euh, imaam la moo tax Seydi Hadji Malick mu defee ba mu indee gàmm ba pare avant gàmm ci fukki fan njëkk yi mu woote ci burdu la moo waral burdu waaw soxna si ñu lay rafetlu sa laaj bi nga laaj waaye nga may ñu rek ñu nuyu njabootu maam Cheikh Seydil Hadj Malick radiallahu taala anhu tàmbalee ko ci xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour sëriñ Pape Malick Sy porte parole sëriñ Hadj Malick Sy Maodo sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak sëriñ Sidi Ahmed nekk ci Ndakaar di nuyu tamit njabootu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yëpp njabootu Serigne Mansour Sy borom daaru ji njabootu Seydi Jamil waaye njabootu sama sëriñ sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yal na yàlla yokk seen leer di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Seydi Mouhamed Moustapha ay magam ak rakkam yëpp di nuyu daal njabootu Cheikh Hadj Malick góor ak jigéen mag ak ndaw di nuyu itam këru diine yëpp di nuyu ziyaare waa Touba waa ñaseen laayeen ñu ngi ziar ñëpp di nuyu itam jullit yi nekk ci senegal yëpp di leen ndokkee di tamit ci bis bu tedd bi nu jublu muy bisu yonent bi sallallahu alayhi wa waaw laaj bi nga laaj ci maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiallahu anhu li tax euh, mu indi burdu ak li taxit wutalul boppam bis xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa mbiram dafa yaatu te moom rek la yàlla joxoñ ni ñu bu ngeen ko toppee rek di ngeen agsi fi ma fi ma bëgg ngeen agsi fi te nag ñu wax ni temps doomu aadama dafa cher Cheikh Hadj Malick ko ci nuun ya nee na waxtu doomu aadama dafa cher mu ne bu ñu duyoon asamaan ak suuf ci jamaa ba mu fees mënul jënd temps doomu aadama Cheikh Hadj Malick nag xam ni weer wi nga xam ni ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam juddu weer wi yëpp ngëneel la ndax wax na ko wa suma shahrun suma yawmun ata fihi lhuda xarnul quruni sururu fi sururu fi sururu ni mu ko tegle ci at mi mbégte la weer wi mbégte la waaye bés bi tamit mbégte la te ñu xam ni teraanga itam ku tedd lañ koy defal ñu ko Serigne Cheikh di waxe te it dañuy wax ni waajtaayu gan dina tax ñu xam nu gan nga toll parce que li nga war a am gan gu ñëw war a ñëw feeg ñaari weer pour sa waa kër xam nan nga fonke gan gi ñu ngi koy xame ci ni nga koy waajale waaye su fekkente ni gan gi amul solo ci yow itam ni nga koy waajale ci la ko sa waa kër di xam ndax kilifa gu nekk ak njabootam geneen kilifa di ko gane si te njaboot gi xamuñu ko mën nañ ko dégg nii rek mais duñu xam daraje kii ñëw nu mu toll waaye ki muy fekk si mooy xam daraje kii ñëw nu mu toll su ko defee njaboot ga ca suuf bu ñu xoolee seen kilifa gi nga xamante ni bu toogee ci kaw ñoom ñu toog ci suuf moom mu takk ndiggam di bale kër gi di yëkkati ay photo yi bu ñu waxee mu ne leen dafa am gan bu may gane si ku tedd ñoom njaboot gi dinañ xam ni kii ñëw dañ koy yàkkamtee gis lu tax ndax dañuy xam ni kii ñëw ku tedd la loolu nag lañu ñu si Alxaaji Maalik jàngal ci waajtaayu juddu yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi juddu ci fan ak ñaar ci weeru gàmm te Cheikh El xam ni bés bi njëkk ci weeru gàmm ba ci fukkeelu fan ba ak ñaar bis yooyu yëpp bisu ngëneel la ndax bu ne wa suma shahrun suma yawmun kon amul benn diggante bu gàtt boo xam ne ni Cheikh El bàyyi na ko ci ni bés bi am na luñ ci wara a liggéeyal yonent bi li tax nag mu indi burdu comme imam Busayri bi nga xamante ne radiyallahu anhu niñ ko jàngale nit ñu ko jàngale ci daara ji wax nañ ni dafa feebaroon bi mu feebaree mu faju faju faju jàngoro ji te wér mu ne naa jaar nag ci bunt yàlla muy yonent bi ndax xam nga yonent bi bari na ay tur tudde nañ ko tabibul atibba maanaam lépp loo soxla rek boo ubbee paas boobu danga fa fekk njariñu loola boo gisee ñu ne yonent bi am na junni tur ëpp ñi ne ëpp na loolu tur wu ci nekk boo soxlaa loola dangay jaar ci tur woowa bi imam Busayri defee tawasul nag ci yonent bi di ko tagg di ko woy di ko tagg di ko woy di ko tagg di ko ni ñu waxee mu agsi ci benn bayit fa mablawul ilmi fiihi annahu basharun wax nañ ni euh, fi mu waxee ni fi xam-xam yam mooy yonent bi daal mbindeef la waaye nag foofu dafay am gàkk ndax boo nee mbindeef la rek day mel ni mbindeef yëpp ñoo yem te nag muhammadun basharun la kal bashari yonent bi mbindeef la waaye nag yamul ak mbindeef yi moo tax yàlla waxoon ko ni ko qul innama ana basharun mislukum walakin yuuxa ilay teela la wax nit ñi ne leen mbindeef nga comme ñoom waaye nag am na lu dox sa diggante ak ñoom mooy yow dangay jot sama kàddu te ñoom duñu jot sama kàddu kon loolu wane na ni yonent bi bokk la kenn bi imam Busiri agsee foofu nee ñu yonent bi feeñu ko ñu ko mottalil ko bayit bi tekki ni wa innahu xayru xalqullaahi kullihim moom Muhammad mii ngay wax ni mbindeef la comme mbindeef yi waaye nag ku yàlla bind rek yonent bi moo la gën ñu ne nag njariñ li burdu am soriwaay ba tax yonent bi feeñu ba participer ji Cheikh El Hadj Malick ndax dégg naa ci Serigne Abdou mu daan wax ni radiyallahu anhu Serigne El Hadj Malick daan wax ni lii baax na lii ko gën mu ne la gën la Cheikh El Hadj Malick di jël comme yëg na ni yonent bi participer na ci téere boobu Maodo indi ko pour ñu di ci barkeelu su ko defee buñ ne weer wi feeñ na bés bi njëkk nga xam ni dañuy naan yonent bi indi semaine moo des mu judd wala ñaari semaine moo des ñu judd Cheikh El Hadj indi burdu boobu nga xamante ni imam Busiri indi na ko moo tax ñu bari dañuy foog ni burdu Cheikh moo ko indi. waaye bindu ko. Mhm. mais am na lu bind ci yonent bi loo xamante imam ko. lu tax moom jëlul bindam. waaw xam nga Maodo dafay jàngale ndax Serigne Cheikh nee na Cheikh El Hadj day seexale xam-xam yi ci jamono yoo xam ne nit ñi dañuy xeexale xam-xam parce que ku ci ne da wane sa bopp waaye Cheikh El Hadj Malick moom li ko yitteel. mooy li ci pénc mi li ci pénc mi mooy na ñëpp xam kan mooy yonent bi moo tax foo ko bindee rek te mu yëg ni lii sell na yonent bi ànd na ci Maodo day indi loolu ndax bu ko neexoon mënoon na jël nuun ya wala mu jël taysir wala mu jël xurufu salaatu fatih wala euh, fala budda wala yeneen yoo xam ni mën nañ bés bu nekk ñu way benn téere waaye nag xam na ni téere bi moo tax dañuy wax ni imam Busiri amel na njukkoo Cheikh Seydi Hadji Malick ndax Sénégal buñ ko dee xam wax dëgg yàlla nag ginnaaw yàlla Cheikh Hadji Malick moo tax yaatal gu mu yaatal ci xam-xam moo tax ñu xam kan mooy imam Busiri waaye nag ñi xam xam nañ ni Cheikh Hadji Malick bindul groupe waaye nag dangay xool bés bu njëkk bi ak benn bunt bisu ñaareel bi bisu ñetteel bi ba fukki fan yi mat bés bu nekk jullit yi di toog naan mawlaaya salli wa sallim daa iman abadan di ko wax maanaam loolu nit ñi foog nañ ne way la waaye yaa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gis nga fukki fan yi ak ñaar yàlla def na ci doole joo xamante ni bu weesoo ci fukkeelu fan ba ak ñett yow da mel ni danga nekkoon ci néeg ñu génne la ci mbedd bu ñuy waajal gàmmu nit ki li muy yëg ci xolam ak bu ñu gàmmoo ba ca fajar ga day mel ni du yow yaa fi nekkoon démb ak tey man nga romb nit ngeen ne ci jàmm laamisoo tàppasoo waxtaan kafre mais bu ñu gàmmoo ba ci ëllëg sa rek day mel ni dafa am lu doxoon seen diggante te loolu nekkatoo maanaam leeru yonent bi sallallahu alayhi mooy jokkale xol yi nga xam ni ci kuy am yëg laa tax li may wax toujours ni su weer wi xësee teru ñi am yëg-yëg laa wax ñi am yëg-yëgu biir ndax du du ñëpp am yëg-yëg waaye ñi nga xam ni yëg nañu seen borom am nañu leer ci yonent bi ndax seen Hadj Mali wax na ci fakihatu tulab ni yàlla nandal nañu juróom ñett yoon ci leeru yonente bi salaa sallam ñi ci naan nak ba noppi tax seel xaaj maali wax ni uyunul arwaaxi min nuuril hudan ba fa innahu jinsul ala maadinu sudun xam nga alquran wax na sax baabun baatinuhu fihi rahma wa zahiru min qibalihi alazab ñu ne frigo ci biir day sedd mais ci biti dafay tàng moteur biy seddal ci biir mooy tàngal ci biti te benn bi rek la ñu ne yonent bi nag ñëpp ruux yëpp ci moom la ñu génne waaye ñii dañoo sell ñii ñàkk sell ñi nga xam ne nag seen ruux dafa sell ñuy yëg yonent bi bu weer wi teroo am na luy yëg ci seen baatin ci seen biir ni bisu yonent bi mu ngi jege si su ko defee nag bu ñu jàngee burdu bi bu fukki fan yi mat ci niñ ko mag ñi daan doxale Cheikh El Hadj Malick ginnaawam Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mooy benn fan bi nga xam ne moo dox diggante gàmm gi ñu di ko tudde bisu noppalu ci la daan dajale nag muqaddam yi ak ilimaan yi ak taalibe yi di leen jàllaleel nag message yu diine yi nga xamante ni ni yonent bi daan def bu dajale saxaaba yi waxtaan ak ñoom ñi war a dem Yemen yóbbu message bi ñi war a dem Iraq yóbbu message ñi war a dem feneen ak feneen Seex El yi ci bis boobu nag comme burdu nañu fukki fan mu ne nag nañu def bisu noppalu noppalu boobu dañ ko tudd rek waaye du noppalu koo xam ne dañuy dem rek di tëdd di nelaw ak a lekk ka naan déedéet dafay dajale muqaddam yi ci war a dem Saalum mu wax ak moom lan moo nekk Saalum lu fay seen problème seen jàkka ya jumaa ya daara ya nu demee ñu waxtaan ci mu dollil ko lam koy dolli keneen ki jóge Gosaas ñëw wax la fa xew keneen jóge Ndar wax la fa xew suñu paree mu boole leen nag joxaat leen benn leçon boo xamante ni leçon morale lay doon lii ci tarixa bi lii ci sharia bi su ko defee mag ñi kenn ku ne dellu sa dal yaag say taalibe ba ci ëllëg sa nag ñoom ñëpp ñu daje nag mu wax leen kan mooy Seydina Muhammad sallallahu loolu moo waral burdu ñu di ko waajal ndax euh, euh, waajal gan dina tax ñu xam na gan nga toll ndax yonent bi rek moo am buñ ne des na ñaari semaine pour mu judd fii ba booba ñuy julli ci moom di ko tagg di ko way xel yi di dellu ci moom ba bis bi mu war a juddoo nag ci la ñu Cheikh Alxaaj Maalik di wax nag ki doon waajal moom mooy kan looloo tax nag bu boobaa nag xilaasu zahab nag la ñuy di teg nag ci ëtt bi ndax pour nga xam kan mooy yonent bi nag foog da ngay teg xilaasu zahab waaw ngëneel yi moom bari na bunt yi bari na téere yi bari na waaye nag lii Cheikh Seydi Alxaaj Maalik indi ci yonent bi nag néew na néew na nga fekk ko ci beneen téere soxna mu ne dina dem ba dootul gàmmu mukk muy wét fu ne léegi nit ñaa ngi koy jóge di ñëw Tiwaawan kon Cheikh xaaj malik kom dafa waxoon ni yow yonent bi awma dara lu mu présenté ci sa kanam lu dul bëgg la te cofeel dafa rëy jébbal la sama bopp àdduna ak àllaaxira ak lépp lu ma am nag ndax wax na ko feneen alaa yaa rasulallah kulli wa jumlati man nag ku ma am ak lu ma am rek jébbal naa la ko yow yonent bi comme moom léppam jébbal na ko yonent bi nag sañatu la wut beneen bis boo xam ne dañ ko koy askanale moom te it xam na ni yonent bi rek la nit ñi mën a làqatu ci moom pour mucc mu indi ko teg ko ci suñu kanam tey soxna si bari na ñoo xamante ne ñu ngi gàmmu na na na yàlla bëgge ñu gàmmoo ni te njàngale ma ñu ngi ko jële ci Cheikh Seydil Hadji Malick ndax bu du woon moom du ñu xam nañ la ñuy gàmmoo ndax gàmm yàgg na fi nag du Cheikh El Hadj moo fi indi gàmm waaye nag ni yàlla bëggee ñu di ko gàmmoo yonent bi bëggee ñu di ko gàmmoo Cheikh El Hadj moo ko jàngale ndax am na ñoo xamante ni seen jàng dañ ko daan boole ay tëgg góor ñi jigéen ñi di jaxasoo lu nekk ñu di ko ci def boo waxee ñu ne lépp ci gàmm gi la bokk waaye Cheikh El Hadj Malick def ni ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxral xaram bu leen dugal ci lu ñu tuddee yonent bi bu leen ci boole caaxaan bu leen ci dugal lu xaram bu leen ci dugal faat waxtu moo tax gis nga maa ngi fàttaliku Serigne Mansour radiyallahu anhu borom daara ji am na atam gàmm gi tombeek aljuma mais bi mu bi muy def waxtaan daf ni tey li ma bëgg mooy fu waaye mën a nekk sa dal tàkkusaan na ñëpp lal mbalaan wasifa ci waawoon ànd di riir lu tax ndax bëggul ñu topp ambiance u gàmm gi ba bàyyi sartu tarixa bi bëggul tamit ñu topp ambiance u gàmm gi ba julli yi juróom ñu sàggane ko moo tax Seex Alxaaj ni bu ngeen naree ñëw Tiwaawan ni da ngeen di gàmm si nekk fi ba ñibbi te du ngeen julli benn waxtu bu yeboo ngeen toog ci seen kër su fekkente ni di ngeen di ñëw Tiwaawan di gàmmu si te seen laazimu suba ak seen laazimu ngoon ak seen wazifa suba ak seen wazifa ngoon da ngeen ci fas yéene bàyyi benn ndax topp xumbaay bi doon nee na nga toog ci sa kër te def sa sartu tarixa mu mat moo ma gënal ngay ñëw Tiwaawan te li la yàlla sant du mat li la yonent bi sant du mat li nga diggaaleeg Cheikh na Tidiane du mat moo tax moom moo jàngale nan la ñuy gàmmoo pour nga mën a dab ngëneel li nekk ci biir gàmm ci gàmmu koñ yu ndaw ndawaan yi ngay gis da ngay gis ni ñu baas ñaari baas walla ñetti baas ni dañuy gàmmu waaye boo fa toogee rek da ngay xam ne ñii dañuy fa waaye gàmmuñu Cheikh El Hadj Malick nag loolu lay dawal njabootam di ko dawal boppam moo boo déggee ñuy wax naan euh, Cheikh El Hadj Malick gaalu sunna këram la koste maanaam moom lépp lu génn sunna rek Cheikh xaj Hadj Malick gedd na loolu yar na ci njabootam itam ba ñoom itam lépp loo xamante ni luñ naan accam la mu génn sunna boo demee Tiwaawan yàlla dogal na doo ko ko gis kon nit ñuy gàmmoo ki ko jàngale ba nit ñi xam nan lañu ñu war a toppee yonent bi maam Cheikh Seydi Hadji Malick wax dëgg yàlla moom moo ko jàngale. àdduna nag dafa bari ay jàngalekat ku nekk ak la nga jàngale ku nekk ak na nga jàngale même di nga gis fukki jigéen yu xëy dem marché ku ne yor 15000 francs ñu bokk benn ndugg waaye bu ñëwee ci kër gi du ñu bokk nuñ ko toggee. waaye même buñ bokkee lu ñu togg yi tamit cafka yi mën naa bañ a bokk Cheikh El Hadj nag njàngaleem dafa yemul ak beneen njàngale ndax moom dafa dafa teel a wax boppam wax ay njabootam ni leen man duma seen sëriñ taalibe laa comme yéen ndax dégg naa ci sëriñ Cheikh mu ne Cheikh El bi mu fiy jógee li mu fi bàyyi daf ni bu leen waxati taalibe dee leen wax mbokku taalibe moom Serigne Cheikh mu ne taalibe xewwi na ay góoru diine rek a fi des dama dégg mu wax it moom Serigne Cheikh mu ne sëñ Babacar Sy daf ko bés mook Serigne Mansour ni leen dafa am lu ma leen di dénk ñii ñëw ci kër gi bu leen jàpp ni samay jaam lañu déedéet na ngeen leen jàppe seeni nawle ndax dañoo jóge seeni kër baay jóge seeni kër ndey ñëw fi di fi wut si yàlla kese kon bu ngeen leen di xool na ngeen leen xoole bëtu nawle te bañ leen a xoole bëtu taalibe wala ngeen di leen xoole beneen bët kon loolu tamit mooy li ma la wax ni njàngale yi dafa bari waaye nag dafa wuute waaye nag bu fekkente ni nan lañu war a toppe yonent bi ba li yàlla bëgg jullit bi dabu ko ci biir leeru yonent bi ah wax dëgg yàlla Cheikh Seydil Hadj Malick ñun moo ko jàngal ñun kuy dem gàmmu war ngaa xam li lay yëkkati parce que dañu wax ni kuy jóg war ngaa xam lu la yëkkati kuy dem war ngaa xam fi nga jëm war ngaa xam la fay fekk war ngaa xam ni nga koy wute kon kuy dem kuy jóg di dem gàmmu ji ak foo mën a gàmmu ji ñii dañuy gàmmu ji Tiwaawan ñii gàmmu ji ñase ñii gàmmu ji Yoof ñii gàmmu ji Tuuba ñii gàmmu ji feneen ak feneen waaye kenn ku nekk su fekkente ni dabu leeru yonent bi moo la tax a jóg parce que nit ñi itam Sénégal dafa bari ñuy jóg te mbumbaay rek leen tax a jóg ndax bu fekkee dangay ngay dem Tiwaawan ba ñibbisi te mënoo faa wax benn baat boo fa jëli kilifa yi wax ko jaru woon ngay dem su fekkee da ngay dem Tiwaawan ba ñibbisi julliwoo fa benn waxtu jaru woon ngay dem Tiwaawan dem Tiwaawan ba ñëw te julliwoo ci yonent bi benn yoon salaa salaam jar ndax yaa ngi dem waaye xamuloo li la yëkkati kon kiy jóg di gàmmu ji na xam ni dafa jëm ci feet feet gi ki ko moom mooy ki tax ñu bind ko ndax wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun fa fi taazimi in jaaxu loolu Cheikh El Hadj nee na màggal guddi yonent bi nee na xeeti yiw yépp mu ngi ci biir mu ne nag ci biir màggal gi nga teg ko ci niñ la ko sante ci ngay amee fajug aju àdduna ci ngay ame fajug aju àllaaxira waaye nag kan la ko wax moo tax mu ne boo xamee ni nga koy màggale booy dem danga nga waajal sa bopp ci sa yére ndax kuy jóg jëm ci yonent bi am na yére yoo xam ne waruloo ko sol surtout jigéen ñi am na comportement boo xam ne ni ngay mel fii ci Ndakaar waruloo waruloo ko mel fa ngay gàmmu je boo àggee yi tamit waxtu wu nekk sa xel na nekk ci sa borom ndax Cheikh Hadj Malick wax na la boppam nee na la man binduma la moomu ma la bu dee sëriñ ngay wut man Malick taalibe la benn sëriñ laa am muy Cheikh na Tidiane Cheikh na Tidiane benn sëriñ la am muy yonent bi yonent bi benn sëriñ la am muy yàlla comme man Malick soo agsee ci man dama naan la du man joxoñ baa nga nële joxoñ la yoon wi ñu la nag moo tax nga dégg mu daan wax euh, mag ñi ñi ko jox werd bàyyi ko mu dem man ngeen sax ba ñu ti ci àdduna waaye su ca jàppee charte ya mat yow mi ko ko jox nga matal say charte ngeen toog li des ci seen dund gisantewu leen bés dina ñëw ngeen bokk benn saal ci aljanna parce ku jaar ci yoon wi te wàccoo ko fa waaj a àgg rek da nga fa àgg te comme tarixa bi guum la goo xamante ni mu ngi lay jokkale direct sukkanaahumu fii daari alliyiina mujaawiriina sayyidul mursaliina kon boo ci jàppee ak foo mën a nekk dinga dëkkaale ak yonent bi te yaa ngi dëkk alliyiin xam nga ñun ñii fi toog ñu ne dañuy dañuy dañu jëm pale yow nga jóge Mbuur Mor Diop jóge Kaolack Omar jóge Thiès ab Samb jóge Louga man ma jóge Caaroy gisante wuñu xamante waaye danañ bokk daje ca saal lu tax parce que carte bi nga yor moom laa yor moom la kii yor moom la kii na fekk rek carte bi nekk carte boo xamante ni ñoom waa palais ñoo ko joxe même boo demee falsifié ba carte yu nuroo ñoom ñande ca buntoo boo accès danañ xam ni yow lii normalul moo seen xaaj Maalik di daal mu ngi ciy wax naan euh, in xulta zaaka lahu lil jamii xultu naam lakinnama chartuna ifraadu talxiin pour nga mën dugg nag ci saal booba dangay ngay mën matal charte yi bu fekkente ni charte yi mataloo ko bu ñëpp duggee itam boo accès bu ñu buntoo dañ moo tax ma wax na ni Cheikh Hadj Mali moom li ko itteeloon mooy mu fexe ba carte bi mu lay teg ci sa loxo mu nekk carte bu valable boo xamante ni su ko neexee bañ laa gisati nga bañ a di ko gis waaye li ko wóor moom Cheikh El Hadj mooy carte bi mu la jox bunt boo àgg danañ la ubbil nga jàll loolu rek moom moo ko intéressé moom kon kii waaja tamit pour dem gàmmu Tiwaawan na defar boppam fii muy jógee balaa muy dem ndax nit ñi di demee noonu la yeneen mbindeef yàlla di demee yoo xam ne du nit ndax yonent bi nag bul fàtte ni yàlla yónniwu ko rek ci nit ñi kese yàlla daf ko yónni ci jinne yi Cheikh Hadj Malick Sy nett na nag wa kaana lam yashuran bi jinni aw nazalat wa istarafna fa naala al ilma kal alami yonent bi mosu woon a xam ni yàlla daf ko yónni ci jinne ko moom ci nit ñi rek la ko yónni waaye ci yoonu taayifam ak histoire ba la ca xew ci la yonent bi xam nag ni yàlla daf may yónni ci nit ñi yónni ma ci jinne yi yónni ma ci lépp lu mu bind kon bésam bu ñëwee yow soxna si boo jógee di dem xamal sa bopp mais bul xam keneen bul foog ni lan nga koy gis lépp ay nit lañu yëpp yàlla rek a xam kon sa comportement na nga ko defee benn Seex El Hadj Malick li ko gën a yitteel ci taalibeem mooy teggin li ko gën a yitteel ci taalibeem mooy teggin Seex El Hadj Malick bëggul bu amul teggin kon bala ngaa jóg na nga làmboo ay teggin même boo ko amul fii ci sa kër baay na fexe ba jéem koo àbb sax ba ñibbisi delloo ko boroom nga jéem xool nooy def. ndax boo fa demee donte danga nga àbb yar teggin yóbbaale ko waaye ba nga demee lañ la sant def nga ko yàlla mën na laa dimbali nga jëlee fa teggin boo xam ne yaa koy moomal sa bopp day taxaw yow ba biir bàmba bi ci des it mooy sa charia mooy fi julli jotee na nga jàpp julli ndax kër Cheikh Hadj Malick kat faat waxtu bokkul ci seen sunna Cheikh Hadj Malick dafa fonk julli. dinaa ko dagg kon ku jël weer de. nga euh, faat waxtu faat euh, say werd tamit defoo ko ba gàmm bi jeex loolu la mooy say daan ah, dañuy seet li ko tax a def rek bu fekkee ngant la a ah, daruraat hmm. na bu fekkee ngant la waaye li ñuy bañ mooy nga teg ko ci sa bakkan mooy li ma wax rek topp ambiance ambiance gàmm ndax ah, dafa am ni ñoo xam ne kumbeel daf leen a mën a dëgg la topp kumbeel bi ko doo gar hmm. topp kumbeel bi doo julli hmm. bu ñu waxee ne daal Seydi Hadj Malick attan na lépp Seydi Hadj Malick attan na lépp yonent bi sax li muy for foor attumul lépp ndax dafa am loo xamante ni yàlla ko moom am lu yonent bi moom am lu Seydina Cheikh moom am lu Cheikh El Hadj Malick moom am yow loo moomal sa bopp muy juróomi baaraam li yàlla moom li yonent bi moom li Cheikh na Tijaan moom li El Hadj Malick moom ak yow taalibe bi li nga moomal sa bopp gis nga li yàlla moom bul ko jox kenn bul ko sédd kenn ndax inna allah laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika yàlla nee na ni ma moom moom boo ci dugalee keneen boobu bàkkaar nee na duma la ko baal mooy ashirk kon li yàlla moom njëkk koo xam ba noppi nga jox ko ko ba bu la ci keneen fekkee bëgg la caa ay jëli nga lam li yonent bi moom ci yow nga xam ko mooy nga xam ni moo tax ñu bind la mooy sa sang nga saxoo julli ci moom saxoo sopp ko saxal sunnaam ndax suñu xaaj maayu nee na dafa war lu war la waajib la wa waajibun taatun hadi mahabatu sopp yonente bi farata la dafa war ci julli bu ne ndax yàlla waxoon nañu ni annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim yéen jullit yi dugg ci daairatul iman yonent bi moo gën a yey ci yéen seen bakkan sa bakkanu bopp yow bi nga moom yonent bi moo la ci ëpp sañ-sañ kon yonent bi bu fekkonte ni nit mën na moom nit dañuy wax ni yonent bi moo ñu moom waaye nit ñi mënuñoo nekk jaamu kenn ku dul yàlla kon li yonent bi moom xam ko muy lépp looy def nga teg ko ci sunna luñ ne la yonent bi lii la daan def nga jéem ko boo ci jógee nag Seydina Cheikh nga xam mooy kan bul ko yëkkati mukk teg ci suuf jël keneen teg ku mukk ci kaw Cheikh na Tidiane ndax moom mooy mu mi di kulli awliya rahmaan képp ku di waliyu bo xamanteni ni sa wilaaya mat na fa yàlla nee Cheikh na Tidiane moy sa sa tëmbuwaay kon tariqam bi nga xamanteni indi na ko te Cheikh El Hadj Mali wax ni shatu tariqati li tariqati la lahu hatta tazula bi mawtihi Cheikh El Hadj Mali ni shart yi yi nga xamni dafa làmb tariqa bi nee na kooku yoonu Cheikh na Tidiane newu boko boo ko xësee jalgati kooku moom Cheikh yoonam newu parce que li ñuy wax naan constitution la xawma président mënu ko fi jël premier ministre parce que daf koy fekk réew mi ko keneen ku ñëw tamit ci loolu lay tëw Cheikh na Tidiane itam tarixa bi li tax moom mënu ci dindi wala mu di ci parce que noonu la wàccaale yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko indi parce que dañuy wax ni pharmacien bi ne ci pharmacie bi di jaay garab garab gam la jox notice ba ci biir dafa ko jël dafa caa fekk Cheikh na Tidiane tamit charte yi nga xam ne moo àndaale tarixa bi ban ko koy jox dafa àndaale ak charte yi kon li nga xam ni cheikh ko moom muy sa wàllu tarixa xam ko nga téye ko ndax sëriñ cheikh nee am na loo xamante ni téye ko bóof ki nànk ko tëdd ci bu def ba bu ci dara jël muy li Cheikh Alxaaji moom di sa sëriñ nga xam ko te mooy lim la jàngal orma la jàngali tamit mooy bul fay mukk sa tarix bul dog orma yi tamit ci ku yàlla bind moo xam kilifa la moo xam ku mën a doon na nekk mbindeefum yàlla rek Cheikh Hadj Malick nee na la bul ko dog orma la ca des itam mooy li nga xam ne yow yaa ko moomal sa bopp muy sa fayday bopp parce que Serigne nag nee fayda nag kalpe la boo xamante ni borom moo ko def ci poosam la ca ne moo ko xam ku ko ci bëgg a génne nag Serigne Cheikh nee na boo dugalee sa loxo neen na am fay day téye loxo bi nag naj ko wan ko ne ko ni que lii sama poos la te li ci nekk maa moom nee na loolu mooy fay kon nag juróom yi nga xam ne bii yàllaa ko moom bii yonent bee ko moom bii Cheikh na Tidiane ko bii Maodo ko moom euh, Cheikh Hadj Malick ngeen bii yow taalibe bi yaa ko moom te pour ñeent yi nga matal ko day fekk bii nga moomal sa bopp nag mooy taalibe bu am fayda boo amee fayda rek di nga déggu Cheikh Hadj Malick ci li mu bind di nga déggoog Cheikh na Tidiane ci tarixam di nga déggoog yonent bi ci sunnam di nga déggoog sa borom ci li nga xamante ni moo ko moom te doo jël mukk li yàlla moom di ko jox beneen mbindeef ndax yàlla la moom keneen attan kon juróom yi mooy li nga xamante ni yow miy dem moom ngóor yi yóbbaale Tiwaawan wala nga di ko yóbbaale feneen mooy daal booy dem nga xam ni dangay dem ngir jaamu ji yàlla dangay dem ngir mottali si kóllëre ak yonent bi ndax Cheikh Xaj Maalik dafa waxoon ni ala xablal mawaddati jaddidiha fa fi tajdidi naxya kulla xiin sa cofeel gi nga amante ak yonent bi saa boo xëyee Cheikh Xaj Maalik nee na dee ko feddali oto yi daw sax dañuy dem ba yàgg ñu dem seen assurance ñu dem di xamoon di seen yooyu ngeen di dugal visite technique ak yu kenn xamul portable da ngay dem ba yàgg batterie bi wàcc nga dem chargé waat crédit bi jeex nga dem chargé waat léeg-léeg nga euh, def mise saa jour xaw ma nit yi tamit uh-huh. da ngay dem dem ba yàgg sa cofeel ak yonent bi parce que dañuy wax ni ngëm day yokk di wàññe di yéeg di wàcc léeg-léeg sa ngëm yéeg léeg-léeg sa ngëm wàcc léeg-léegi tamit loolooy waral Cheikh Hadj Malick ni kon sa cofeel ci yonent bi nañ koy beesal looloo waral nag bu gàmmu Tiwaawan jotee wala bu gàmmu jotee ñëpp ñoo xamante ni am nañ cofeelu yonent bi nga gis dootuñ am jàmm ñu nga ca préparation ñu ngay ñaw ñu ngay koo dégg muy waxtaan rek gàmm gi lay waxtaan yaa yaa ngi waaj gàmm lu tax dañoo fas yéenee dem te suñ Mansour radiyallahu anhu daan wax ni lay wi leer na yomb na waaye yow looy ñawlu damay waajal gàmm gi fooy gàmm ji ci lu tax sama ndigalu kilifa loo fay def damay màggali ki tax yàlla bind ma sinon su nee na lay wi leer nee na kenn mënut a jaay teg dara su ko defee nañu xam ni ñiy jóg di gàmm ji caaxaan yóbbuwu leen foog xumbeen yóbbuwu leen leen yóbbu mooy dem nandalu ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam te soxna dafa am loo xamante ni ku gëmul baatin mënoo ko wax léeg nga dégg ñu ni ah jigéen ñi dem nangam nangam caaxaan na nangam yi baatin baatin ku xamul baatin mënoo àtte baatin dafay daje yëpp ku xamul baatin dañuy jàpp ne rek nit ñee fi daje nii añ reer ndékki dem ca sëriñ ba ziar ko nangam ak i nangam déedéet ku ko àtte foofu rek juum waaw ndax da ngay xool maa ngi déglu barki dem sëriñ Babacar Sy radiyallahu anhu burdu bi mu mujjee burdu maa ngi koy njëkk a dégg ci sëñ Pape Malick mu di ko wax ni sëñ Babacar bi muy ñëw ci bunt boobu dafa feebar mu ne boo ngeen dégloo bunt bi sax am na fu mu ci waaye ba yàgg muy sëqat boo de maa ngi koy dégluwaat ndax boobu manu ko woon lu toll ni sëñ Babacar ak cëram ak wilaayam nga xam mënoon naa toog yabal njabootam su ko jaralee yaramam wéradi mu wàcc dem di bu pare duggaat néegam balaa tëdd cinq heures du matin bu jullee ba noppi mu ngi ci kursam te yaa nekkaat ci gan yi la ko ko jaral xam ngeen ni du neenu neen mu jóge Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh gis ngeen vidéo bi mujj dem na ba mënatul dara waaye du bàyyi lenn ak kenn ndax waabud rabbaka xataa yatiyaka yaqin nit ñi dañ ko daan mujj ñeewante daal ah, moom Abdou na toog moo waaye moom toujours bu xëyee rek ñu jël aaya teg ko ci kanamam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqiin mu nekk ci loolu kon bu ci ay caaxaan nekkoon seen xaji Abdoulaye am na foo xam bu fa tollu mënoon waaye daf ciy nekk ba daanu ci waaram bërki démb sëriñ Abdoul Aziz Al Amin yàlla yàlla yokk leeram ku ne xam na ni li mu doon def yëpp dara lu ci man waaye dafa dem moom ba jeexal tànn tànn xam ne daal jeexal na jeexal na mu jeex rek continué nañu wuy ji borom kon ñooñu du ñu dox ci dara caaxaan kon ku foog ni nit ñi dañoo daje nii rek di dugg ak a génn di dugg ndax maa ngi dégg gàmmu 84 wala 83 Serigne Cheikh ni dafa am ku doon ay ay borom yu barke yu ñëwoon di ziar ci gàmmu nee na ne bi rang bi sori tàng na Serigne Abdou Aziz a Amine gis leen daal di génn comme ay kilifa lañu. te tàngaay na te wut fu mu leen teg ci seen gaaw gi ni ko diw diw bi génne naa leen ca rang ñu ngi ci saal bi mais sëñ Babacar daf ko ni bul yàq seen yoon delloo leen ca rang ndax am na loo xamante ni ca boobu rek lañ koy am kon ku foog ñi dañuy rang nii nii rek nga naan ñii dañoo nàngam ak ñii dañoo nàngam booba yow yaa xamul li ngay def waaye Cheikh El Hadj Malick caaxaan njabootam yi tamit caaxaan kon kuy dem da xam ne demoo ci bisu caaxaan demoo ci xam ne dafa tund ni rek da xam ne yaa ngi dem ngir tànk ci leeru Seydina Muhammad te nag yonent bi leeram yàlla du ko def mukk ci ndab lu tilim ndab lu yàlla du ci kon nag ndab suñuy ndab nañ ko setal ngir yàlla mën ci def suñu bopp nañu laabal suñu bopp nañu yiw nañu ànd teggin te kenn ku nekk dal ba nga dal bu fa nekk rek di lekk ka naan di solo ko si déedéet taxul kenn def sëñ Abdou daan wax ne dal bu nekk dañu seet ka bu ngoonee wala guddi donte laxdari lay jàngale wala njàpp wala lu mën a doon nit ñi daje mu waxtaan ak ñoom ñu ñaan ba déwén bu ko dal yëpp defee rek yëf yi dina baax waaye bu fekkente ni dal yi lekk naan tëdd nelaw mu ngi liggéey ñu meew dem jumaa ji ñëwaat nee na loolu taxul kenn dox kon gàmmu dafa am lu koy defar mooy soo jógee ci wàll nga jëlee fa dara defaru ci sa wàllu jikko defaru ci sa wàllu diine defaru ci sa wàllu tarix loolu daal maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk sama mbokki taalibe yi nga xam ne fas na ni yéene dem ci wàll ndax nag waawoon dëkku leer la dëkku leer nag boo fa dee dem da yu yóbbaale leer su ko defee boo fa demee rek yàlla mën na la defal li nga xam ne fekkente ni dañ fa démé bakkan rek bakkan la foofu la yóbbu du sori yàlla ci yàlla mo sul an nif an an nafsu nak ka in tuub minhu shabba ala hubbi rada wa in taftinhu yanfati bi defee suñu bakkan nañ ko feral wala ñuy àgg fofu ndax Cheikh El Hadj Malick jàngaleem leer na léppam daf ko tek ci sunna te bés bi mom mom ko yonent bi moo ko kuy jël nag ci bisu yonent bi war nga fexe ba fa ngay dal deel bari looy julli ci yonent bi bu julli jotee daayira yi nañuy bu ñu mënee am noddukat ñu nodd ñu julli jotee ñu julli wazifa jotee ñu lal seen mbalaan wazifa wazifa bu dee xadaratul jumaa ñu def ko suñu paree guddi gàmm ñu def seen waxtaanu gàmm ñaan xamante ndax am ñoo xam ne mënuñoo joti ci bi may waaye kenn ko nekk fa nga toog boo fa defee la nga xam ne moom la ñi ci jumaa ja santaane rek da ngay am yoonu ña nekk jumaa ji loolu nag maa ngi koy dénk sama bopp ko dénk ñëpp ñu fekke ko tatal ko te li ci borom bëggoon yëpp muy Cheikh Hadji Malick mooy nit ñi gën a xam yonent bi nit ñi gën a sopp yonent bi ndax yonent bi ku ko xam sopp ko te ku ko sopp texe Cheikh Hadj Malick loolu rek la ci bëgg yàlla na ko yàlla defal di jaay te ko defee jigéen ñi ndax du ñëpp waaye am na ci jigéen ñu sell jigéen ñu ñëw ñoo xam ni dañuy muuru yor seen kurus léeg-léeg ñu ngi ca bayal yi lal seen sa jaada toog ñeneen ñi ca xabru ya waaye day am ñoo xamante ni mooy li ma dañuy dem nii rek ndax nit ñaa ngi dem maa ngi dem même buñ demee sax duñu xam nu ñuy ñaan duñu xam nu ñuy ziyaara am na ci ñoo xam ne daañ àgg ci ñàkk xam ñu nga dem ci jumaa yi ni dañuy ziar te yaa ngi dem amuloo njàpp dugg ci xabru yi wala nga dem ci xabru maa ngi day ñaan yàlla eh, maa ngi day ñaan defal ma lii déedéet dañ ni sa sëriñ boo teewee ci kanamam bu dee kii dund li nga koy wax mooy ñaanal ma yàlla kon moom daf lay ñaanal yàlla parce que jàpp nga ni moo la gën a jege yàlla moo la gën a sell nga di ko ñaanloo pour tinu yàlla rus la ci moom bu dee kii fi jóge nga tiim xabroom da ngay ñaan yàlla maa ngi lay ñaan ci sa barke jàmbu tedd bu sell bii nga xam ni liggéeyal na la ba am sa ngërëm maa ngi làqatu ci ngërëm loolu di jaar ci moom def tawasul ci moom yàlla na nga ko ruse ndax yàlla dina ruse nit nit ndax man zal ladhi yashfa indahu illa bi kon ëlëk yàlla nee na am na ñoo xam dinaa leen jox ndigal ñu ram yàlla yi tamit ndax sëñ baabu gasi radiallahu anhu dégg naa daan wax ni firawna sax li muy bon bon bu ma ko tiinuloon yàlla tin ko kon kooku am na fu mu àgg diggante ma borom su ko defee nga tiim ko ñaan ci barkeem man nga def say salatu fatih jox ko ko hadiya jox ko hadiya yonent bi yéen ko yool bi ñaan nag yàlla maa ngi lay ñaan nangam yàlla ma ko defal ci barke sëñ baabu gasi yàlla maa ngi lay ñaan yàlla ma defal nangam noonu nga koy toppe kenn ko ne yaa xam fa ngay ziyaare nga ñaan waaye nag bul def direct ci parce que dafay dugg ci shirk ah sëñ Babacar de maa ngi lay ñaan defal ma nangam ah xëj na xeerte dina ko waral waaye sëñ Mansour daan wax xeer bu baax la waaye xeerere ni moo bon xeerere ni mooy fa nga waroon a yem nga romb ko di su ko defee loolu tamit di ko bàyyi xel xam ni ñuy ñaane ci sëriñ si xabru yi nag am na ñoo xam ne ñu ngi contesté naan ziyaara xabru dafa araam ak nangam nangam fekk loolu moom du débat loolu du masala nit ñi dépassé parce que nit ñi li ñu xës ba gën gëm nañ ko te sëriñ Cheikh nee ki la jàngal yonent bi ba nga xam ko sëriñ Cheikh nee na kooku nag kenn dootul wax dara ci boppam waaw nag Cheikh Ay Mali moo tax ñu dindi nite xam kan mooy yàlla xam kan mooy yonent bi xam kan mooy Seydina Cheikh kon sukk ci xabroom delloo ko njukkal Serigne Cheikh nee na ko kenn duñu ko ko defee loolu tamit ñu bàyyi ko jigéen ñi daal ngeen xam ngeen ni waajale seen bopp ci col yeeg coow yeeg surtout coow yi seen xaj Abdoulaye daan wax ni xam nga seen gaaw ko bi ngeen fa dee ziar di ngeen suufee seen bàq. ni ko noonu bu Cheikh Hadj Malick ni ko noonu bu Serigne Abdou bu Serigne Cheikh bu ñu fa àggatee dañu taxoo orma waaye léegi portable yi da ngay gis ku ñëw ba ci xamu Cheikh El Hadji Malick di di lii. loolu xamul ko defee yooyu tamit dañ koy bàyyi xel barab yu mel noonu barab yu ñaan dem waaye doo fa nekk di def loo xamante ni léegi da xew ñu dugg ko te mag ñi daaw moo tax mag ni ñu amee ko amoon ci mën nañu tester waaye li ñu war a am duñ ko وكل فرد من الكفار عنه عالي صدق بالغيب صدق يقولون ما في الغار من آريه yàlla may ñu àgg ci bis bu ak jàmm di ñaanal ci diine di ñaanal ñëpp ci ci seen xel mari yàlla yàlla yokk seen sutura yàlla yàlla yokk seen tawfeex seen dund yàlla yàlla defal di jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam réew mi yàlla fi ñëpp kenn ku ci nekk lenn rek ngay défendre mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu defee yàlla yàlla di ko ñëpp jàmm fan yii yëpp yàlla yàlla may na ko fan wér di jaale sëriñ yi di fan ci jaasaan moom bu defee yàlla yàlla fay ko suuf ci kaw te ko wuti tamit yàlla yàlla jàppale ko di di daal di ñëpp ñu tamit ñi nga xam ne ñoo jiite ci wàllu àdduna yàlla defal leen jàmm ndax bu ñu amee jàmm ñu tamit yàlla yàlla jàppale leen seen télévision Mbegnac yàlla ko yàlla gën a dinañ toll nii ñu gën a leen indiloon fii ci Poste Thiaroye moom lañ fekk si woon fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ci gàmm gi gis nañ conseil nga julli di waaye tam mbokk taalibe yi surtout jigéen ñi conseil yi nga xamante ne am na lépp ci euh, moo waral gàmm conseil yi nga xamante ne ak comportement yi nga xamante war nañ ko ci gàmm yéen a ngi dégg fii dégagé maa rek ku tegginu la soxla kon war nañoo tegginu ba bu ñu demee tuwaaw bu ñu fa jëlee leen leen leen lay bàkkaar wala leen loo xamante ne neexul euh, yàlla ak yonent bi waaye tam ñu ngi si si dégagé maa si radiyallahu taala am ñu góorgóorlu la ba gàmm gi ñu jël fa yiw tibb ci leer bi ubbi ko fi ñu dëkk incha allah rabi yàlla mën na ko mën na ko yàlla ko yàlla def gàmm euh, bi yàlla nañ ko fekkee jàmm euh, dem si jàmm ñëw si jàmm zéro accident incha allah rabi ak képp koo xam ne bërëb boo mënta nekk fooy gàmm jee muy Touba di Kaolack di Laayeen fépp koo euh, xamante ni yaa ngi koy gàmm jee yàlla yàlla def na dem si jàmm ñëw si jàmm am fa tiyaaba ci bakk yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu fi dugal ngeen xam ne borom subhaanahu wa taala lu fi gën ngeen xam ne ñun la ñun ñoo matali waaxiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu سلمت الندى من خير مستلمين